donc euh, jërëjëf euh, je pense que euh, si cérémonie bi euh, émotion guen na fi ay kàddu yu rafet jib nañ fi té lool duñu def lu dul di ci sante yalla té di wax ben kàddu bo xamantene dama koy dégg lu bari ci future media moy nek future media famille la kenen ku wax lenen da fek ñewul dund ak ñun li ñuy dund biir future media duñu def luddul santat bu baax président Youssou Ndour comme ni mako ko diko ñaanal taxawayam gëna a mu gudd fan tey bu ànd ak wér di remercier encore une fois de plus sama partenaire yi muy wa Firmama ci lëkkaloo bu am solo bi nga xamantene am nañ ko waaye man kese mënuma lépp en tant que directeur général dama am samay collaborateur yoo xamante ne ñoom laa sekkal liggéey bi te ñu si bëri ñi ngi fiy toog tey donc damay profité si occasion bi pour ñi fi nekk ak ñi fi nekkul yépp di leen remercier parce que tey bu ñu nee Futur Média numéro 1 xëy na dinañ xalaat directeur général bi mais dañuy xalaat ñëpp ñi nga xamante ne nekk si chaîne bi wa administration bi yep ma ngi len di gërëm di len sant di len gëna ñaax pour ñu lu ci liggéey bi parce que comme lu ñuy wax jitu yomb na waye dess fa mo jafé waye yalla mi ñuy sutural ba nga xamantene ne ñi ngi jitu nañu gëna farlu ci loolu gëna jëm ci kanam ndax loolu amna solo parce que tank que kër gee di jëm ci kanam oustaz wax ngeen ko sank xeyna yalla di ñu sutural di ñu gëna a pour ñu gëna def ci askan wi parce que doon naa ko wax mané euh kër buy jëm ci kanam nako agent yi sentir parce que bu agent yi sentiré sen bop ci bir kër gi daf lay yombal yow lu bëri parce que buñu gisé sen bop rek dañuy gëna sawar ci liggéey bi mais bu dee dañu xalaat que affaire yi dafa fété bor rek xeyna niñ ci wara farlo duñ ko def donc tay c'est c'est un moment bi nga xamante vraiment il y a beaucoup d'émotions il est important que ñu dello aussi wa kër gi liggéey bi ñuy def parce que liggéey bi am solo bi ñuy def moo ñuy permettre ñu am moyens pour mën a investir wala financer li nga xamante ne ñu ngi koy def tey donc euh, vraiment euh, merci à tout le personnel du groupe Future Media ci effort yi ñuy def ci sacrifice yi ñuy def pour que liggéey bi di jaar yoon parce que ku xam groupe média xam ne que en fait les gens n'ont pas de vie

sànq maa ngi dégg euh, Doucouré di ko wax directeur général neex na lool mais relation bi nga am ak nit ñi moo ëpp solo parce que yére la rek booy sol sa tànk bu paasee buntu kër gi nit nga comme ñëpp ñii di fi ñëw te nga xamante ne man dama leen yilif ay papa lañu ay tonton lañu ay tata lañu ay yaay lañ donc cër boobu dafa war a mutuel c'est-à-dire réciproque cër biñ ma jox dama leen ko war a delloo. pour que surtout ñom ñu gën ma ñamé gën farlu liggéey bi parce que man dama am obligation de résultat té man donc man cote il faut ma and si ak ñëpp donc ma ngi leen di gën tal loxo que jamm gën sax ci biir kër gi solidarité gën am té ñu xamné nak premier yombut waye nañ def lépp ba nga xamante ne kenn du ñëw en tout cas waxuma sax di dab waaye di lam lamé sax pasal jege nañu parce que lolu mom moy objectif yi ñu fixé té amna yaqin né nit ñi fi nek ak compétence ñi am suñu bolo, te def nañ ko ba paré mais doyul damay gëna ñaax rek bu ñu gënee booloo ñaan yi gëna ñëw inshallah lepp luñu lu song dañ ko daan donc vraiment ma ngi remercier ñëpp di ñaan yalla ngeen dem ci bismillahir rahim te ñibisi ci alhamdulilahi rabbil alamin euh limay jéxalé nak mooy euh, bàyyi xel ak dolli ñaan ñi nga xamante ne euh, ñàkk nañ leen ci biir at bi muy Mariane Siva Diop ak ki ñu doon wax njool euh, dafa am benn kaddu ak benn promesse bi nga xamante ne président conseil d'administration bi defoon na ko moo doon jël papay Mariane Siva mu dem ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla def ci diggante bi mu am ndok-ndok waye magam bu goor inshallah mom mo nara dem ajal Mariane Siva donc lolu tamit ñu bëggoon ko fatali nit ñi et puis encore une fois di remercier euh, président Youssou Ndour si geste bu noble boobu parce que nak nit ci aduna li mu am rek moy cadeau, bo samé sa cadeau rek nit ñi mën lañ la say respecté te je pense que sàmm na cadeau, donc ma ngi leen di gërëm di leen sant